Euh, ki nga xam ni mooy Antonio Rudiger euh, léegi la dugg fële nga xam ne euh, mooy kër docteur ya nga xam ni moo nekk ca Madrid fële ci Real Madrid waaye ba mu dugg see futti nañ ko xool yaramam coytu ko waaye médecin yi ba ñu génnee la ñuy yebbi ci mooy lépp a ngi tolloo ka nga xam ne mooy Rudiger la nga xam ne moom la Real Madrid bëgg ci performance loolee mën na koo def lépp a ngi tolloo mi ngi ci forme boo xam ne mucc na ay médecin ya ba ñu génnee lool la ñu waddal ci ay kàddu Marca moom mi nga xam ne moo sësu gone Real Real Madrid nga xam ne lu tàbbi ci information euh, képp ku bëgg lu la wóor foofa nga koy jëlee ci site Marca ba la ñu jëlee loolu euh, kon Rodrigo fi mu toll nii yaramam lépp jàmm léegi ci kanam tuuti ma ngay waaj euh, pour fëgg ci taabal ji contrat boo xam ne bu am solo lay doon beneen bi mooy ñu présenté ko public bi ci ñaxum Santiago Bernabéu